Hmm, ñuy bëggee ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ko sàkku si yéen li may def nag moom mooy bàyyi leen ngeen dem déglu te seetaan yëglikaay yi ñu dikkaat ak yéen si plateau bi. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah jeudi 25 novembre 2021 dañu ñëw ak yéen ci su sunu lamb lañuy xëy doore ko. yëglikaay bi tey xëta mu njëkk maanaam la ca xëy gën caa fes bokk na ci combat bi nga xam ne nii moom lañ dëgmal dimanche ji nga xam ne moom la ñu jëm muy diggante Alioune Seye numéro 2 ak ka nga xam ne moo di sos mu parcelle xëy nag di wax mooy farandoy Alioune numéro 2 muy Lac de Guerre numéro 2 Lac de Guerre numéro moom maanaam la mu jàpp ne mooy caabee combat ba la koy ubbi ngir alin Seye numéro de am ndam lu gaaw ci kaw ki nga xam ne moo di sos Lac nee na du lenn lu dul rek bu arbitre soufflé maanaam wàccam loxoom rek mu dox jëm jëm ci kawam maanaam daal dox ci kaw zos def ko lam koy def jóge fa loolu mooy gis-gisu ko nga xam ne moom moo di Lac de Guiers numéro 2 ci boobu lépp combat leneen loo xam ne tamit wax na ko maanaam Forza itam jàpp na ne daal mu ngay risque moom tamit ca bis boobu ca lay bëre moom Forza bu nu continuer ba tey ci combat Forza boobu ak Pakala coach su ba nga xam ne nag moom moo di Babacar Jonno moom daal ñëw na ji wax ci Forza ak Pakala daa jàpp ne nag la nga xam ne ni daal moom moo di combat boobu la koy régler wala ñoom ñaari mbëri ku ci ne taxawaay ba nga war a am parce que daa jàpp ne bu dee bagaar la ka mu moom baaba Babacar mooy wax de ne na Pakala bagaar ba arrangé na ko wàllum xeex ba Forza tamit daa gis ne jàppante moo ko cay génne loolu mooy ay waxam moom Babacar ci yëglikaay bi nga xam ne moom moo di sunu lamb ñeneen ñoo xam ne nii moom faw ñu jàppante ndax nag lekk na ku lekk say numéro deux diggante bulldozer ma ngeen xam bu Malika ak caatu yaraax ba ak Liss Ndiago ak Bou Siteu ka nag moom moo di Fallou Ndiaye daal moo jox ñeenti mbër yooyu ku ci nekk amas taxawal na seen ay combat yëglikaay bi xëy na tey dikkal ñu ci li mol ni noonu moom sunu lamb ba tey moom sunu làmb bu nu continuer ca tuus ba am na loo xam ne tamit wala ñeneen ñaar ñoo xam ne tamit jël nañu avance kenn ka moo di Cheikh Super Jamono ngeen seetaan ko fii bërki démb ginnaaw bi mu amee ndam ci émission Arena Hebdo digganteem ak Mamor la amee woon ndam moom nag daa mel ni mbir ma seddul daa jóge Arena Hebdo rek bët set ñu jox ko ab avance moom Cheikh Super Jamono moom ak kan moo ak Ziza yëglikaay bi nee na daal boobu combat jamaïcain taxawal na ko Ziza Cheikh Super Jamono combat ba moom léegi leer na nañ beneen combat boo xam ne ni moom mbuur la amee woon waaye nag moom am na xam ne am na ca mbetteel wala ñu bett ko muy général Diouf ma ngeen xam mu nekk ca écrit mbuur bombardier ka ko daan nag moom moo di booy ngaay ba nekk onkaaf yëglikaay boo daal wala boobu onkaan booy ngaay daal moo bett général Diouf daan ko jël bu gaaw te leer yëglikaay ba xëy tey ñëw ñëw nu wax lu mel ni ki noonu kenn ki nga xam ne ni moom aw naqar wala boog wax ju bari yi tegoon ci ginnaawam démb woon na presse bi jàkkaarloog ñoom muy mobile bu Grand mobil nag moom ñamu gën sax jàpp na ñoom maanaam dañoo war a respecté mbër yi bokk na ca waa CNC ndax mobile nee na ba ma ñëwee ñëw laa leen dem ne leen man ñibbisi naa yemu ca moom mobile maanaam daal bañ ko convoqué tamit dem na wuyu ju leen waa conseil ba euh, ña nga xam ne ni daal ñoom ñoo yore wàllum yargaat jubbanti ga ca CNC dalal ko déglu ko mobile nee na bañ ma dégloo nag daal ne ko yow da ngaa signé ab contrat boo xam ne respecté woo ko agu promoteur daal di dem mobile ne leen d' accord waaye yéen itam lenn lan la ci CNC wax wala conseil bi lu mu ci wax mbër moo xam ne jox nañ contrat mu respecté ko ngem bu war a ñëw bëre ñu ne ko làmb ja amatul mu ñu mobile leen loolu tamit lan la ci yoon wax mu mel ne daal mobile démb kon leeral na lu baree bari ci digganteem ak contrat bi nga xam ne ni signé na ko ak warante DKR ak coow la nga xam ne ni bëri woon na ca lool lool kenn koo xam ne moom signé woon na ab contrat ba bëree ba daan muy professeur Maana professeur Maana nag ginnaaw ba mu amee ndam la mu xëy wax lenn la ne na Pape Ndoye ma daan Abou Niass Ada Fass ma daan Tafa Mbër Dame Sène mi daan daan ma lekk sa ab avance mu leer naññ loolu mooy waxi professeur Mané keneen koo xam ne nii moom maanaam maanaam bu nu jógee fa nga xam ne moo di sunu làmb record la ñuy dem buñ fa demee nag Pape Thialis Faye lan fay fekk la Olof Njaay naan kundo bi rey sa maam boo seeni lu ñuul da ngay def waqat daa mel ni moo ko dal ndax ku ne xam na ne face à face organisé woon na ko fi ca cosaan la fa xewoon nag moo doon tafaatin ak booy ñaa mu mel ni ab xeex amoon na fa yàqi otoog xaaj ay nit ak yu mel nekke noonu yu mel nekke nag ba mbir ma amee nag ba pare coow lu baree bari toppoon na ci moo tax nag calis tey face à face ba mu programmé stadium Iba Mar Diop tey jii ci alxames ba nekk payante yemu ca de ginnaaw day fayeku calis ne na tamit sécurité moom mooy njëkk mooy jiitu wala tamit mooy mujj moo tax nag lu toll ci trois cent policiers daal mobilisé na ko tey ngir nag ñu escorté la nga xam ne ni moo di mbër yaag face à ba ba mbir ma am ci jàmm jeex ci jàmm kenn du xaañ kenn mbëree wax la ñu bëgg a wax supporters ya ku ci nekk ñëw supporter sa mbër mbir ma mujj ci jàmm loolu nag la calis da def tey daal fa nga xam ne moo di ca stadium Iba Mar Diop yëglikaay bi moo xëy tey ñëw di wax lu mel ni ki noonu moom record mu mel ni ki daal kon olof da koy faral di wax Habib ku ndóbin rey sama mboosi ni lu ñuul daw ndax nag lu toll ne face à face tafaatin booy ña ku koy organiser te wutoo sécurité jàppal na lu fa xew yow la juum nag nangu ne juum na rectifier sa bopp dara newu ci kon Pape Thione daal ñu ngi koy ñaanal yàlla journée bi tayam boobu bu nga xam ne mooy jàkkaarloo ba yàlla na ci jële ndam waaye bu ci jógee tamit combat ba le 19 décembre yàlla ndam ñaari mbër yee bëre que le meilleur ngeen jëf kon dégg ngeen yëglikaay yi moo xam sunu làmb la moo xam record ba ci sax site internet yi muy Lutte TV ak ñoom ñëpp ku ci ne ndil nga ñu ay xibaar tey ci wàllum làmba waaye tey nag li may leen di wax mooy xam ngeen fan yi gis ngeen fan yi yéen a yéen a ngi gis Ramatoulaye Diallo ah di ànd ak man si plateau bi si JDA bi tey nag gisu ngeen ko fii li ko waral mooy xam naa daal dafa am quelque empêchement rek waaw waaw moo tax yaram bi daal moo xaw a euh, tàng tuuti tey xam naa ne coono yi laak yooyu quoi kon ñu ñaanal ko yàlla yàlla na yàlla oyofal yaram bi bu baax a baax bu mu ñëwaat ñëwaat ci plateau bi waaw tey nag tamit balaa may sooy damay jaale suma bopp jaale suma ay mbokk parce que dama perte ku nga xam ne jarbaat la si man ñu koy wax Youssoufa Diagne euh, dëkk fa fële nga xam ne moom mooy doomu Saint-Louis nekkoon koo xam ne navigateur maanaam boog navigateur wala boog ñi daan dem ci géej gi di napp ay jën loolu moo nekkoon liggéeyam yàlla dogal nag mook ay àndandoom ay moromam ñu demoon géej nappi ji ci seen liggéey yàlla dogal xam naa daal géej gi am na mu demee seen gaal këppu ba ñoom ñëpp ñu mujjee ci yaakaar naa ne ñàkk seen bakkan kon maa ngi koy jaale ñëpp nga xam ne ñoom ñooy famille bi waaw parce que euh, di ko jaale maamam bi nga xam ne moom moo jur way juram bu jigéen di suma yaay Anta Ndiaye nga xam ne moom lu bari moo ko def ci man ci yar ma di ko jaal tamit yaayam Rama Fall ak papaam Ndiak jaañ ak famille bi yëpp ay sërëm ñoom Amin Tag ay frère am Malick waaw famille bi yëpp daal ak ay tantam ñoom Ngoma ñoom tout le monde di ko jaal famille bi yëpp waaw euh, di wax ne daal ah, metti na trop waaye nag kul nafsin saay xatin mawtin sunu borom a ko wax waaw maanaam bakkan bu mu ñam dund da ñam te lu mas a tooy da nga mas a wow kon defe naa ne ñi fi des duñu ay jàmbaar ñi dem tamit ñàkkuñu fayda mais yàlla ñoo koy dogalam ku nekk nag am na fu mu lay woowee kon maa ngi ñaan yàlla daal yàlla na ko yàlla jégal te xare ko aljana moom bépp doomu jullit bu mu fekk ci suuf ak bu ko fa fekk moom Youssoufa Diagne moomu di ko jàll tamit waa Fass Mbao parce que ku ne xam ne ne foofu la yaroo waaw ci kër suma papa Elimane Diom ma koy jaal suma papa Elimane ak suma papa bu góor ak sama waajur bu góor tamit maa ngi ko koy jaal di ko jaal famille bi yépp ku ne xam ne ne Fass Mbao foofu la yaroo si koñ ba euh, di ko jaal tamit waa Kër ma saar fa nga xam ne actuellement fa la yaayam ak papam dëkk waaw mu mel ni loolu lu metti la waaye nag comme ni ma leen ko waxee rek àddina moom noonu la tëdde noonu lay demee saa su ne ñu ñaanal bépp doomu aadama mu wàññeeku rek yàlla na la yàlla yërëm xare aljana ñaan tamit ñi wéradi yal na leen yàlla yëkkati wéral leen ba ñu dellusiwaat seen ay njaboot delluwaat seen ay activité ñu nekk ci prison yi tamit ah yàlla na leen fi yàlla génne waaw parce que tamit njuumte day am ci àddina waaw njuumte day am rawatina nag suma mbokku mbër yi nga xam ne du ma leen fàtte mukk ñoom bébé jéen ñoom ki nga xam ne nii moom mooy ah, ah ba ñoom Kaaw Cissé ñoom ñëpp ñoom bébé saalum ak yeneen ñoo xam ne ñu ngi ci biir te ay maa ngi leen di ñaanal jàmm ñaan yàlla ñu génn foofu ak bépp prisonnier mu nga xam ne yaa ngi ci biir parce que àddina moom noonu la tëdd ñii dañuy nekk ci biti ñii ne ci biir ñii ne ci suuf xam nga yàlla moo dogalee noonu àddina daal kon moo tax yàlla nañu yàlla dimbali daal ba ñuy mën di dund ñuy jéem a daal di yénente jàmm te dund dund bu amal nit ku ci nekk sa mo maanaam la ngay dund la nga yéene sa bopp rek nga di ko yéene sa morom bu ko defee euh, jàmm dina mën a am des fois nag ñoom de si àddina moom lañ ko fekk du fi jóg ba ilaa mi diini waaw loolu moom day am bon tey nag fi ñuy ubbee mooy sunu làmb sunu làmb gis ngeen tey fi mu ñëw ci xëtam mu njëkk ah Lac de Guiers numéro ku ne xam na ko le penseur du Waalo ah la jato <laughs> ñu ngi koy ziar ah, moom mu xëy tey di wax ci combat Alioune Seye numéro 2 mi nga xam ne moom moom ñoo bokk benn écrit muy écrit waal ak zos mi Alioune Seye numéro 2 war a bëreel dimanche bii ñu jëm le 28 novembre te suñu papa Gaston Beng tëgg ko ñu ko ñaanal yàlla làmbam jooju mu tëgg dimanche yàlla na ci dugg bismillah rahmaan rahim génn ne tey amatut lu muy prouvé ci làmb comme ni ma koy faral di wax ndax li ko ci waroon lépp def na ko ci xëy na tey dafa ñëw nag di souteniraat làmb ngir làmb amaat beneen pant gën a loolu am na solo mais lag moom la mu mooy moom dafa joxe li mu jàpp ne moom mooy caabey combat bi kele bi daal la xëy génne nee na kele bi nag du benn Alioune Seye moom lag ne na ko sa kele benn kele la nga amee ci combat bi mooy bu arbitre wàccee loxoom doxal ci kaw Zos demal jëli loolu la ko digtal waaw loolu nag defe naa ne ah loolu la a wax parce que bon bu jàppee ne ñoom ñaar ñu ngi doon liggéey ñooy entraîné di ànd ndax foo gis Alioune Seye de gis fa Lac de Guiers yàlla boole na leen lool moom ñëpp xam nañ ko ci Sénégal defe naa tey bu jëmee ci combat bu toll nii Lac de Guiers 2 mi bëri na ak Zos daan sos ci final yaakaar naa tey moom am na lu mu xam ci sos moo tax xëy na mu waxee noonu ba jàpp ne Alioune Seye daa war a dox jëm ci kaw sos waaye tamit booy dox jëm ci kaw sos na nga bàyyi xel ka ni sos tamit ci làmba marqué na ci empreinte am def na ci lu leer am na ci tàkkusaan yoo xam ne nii daan na ci ay jël ay mbër yoo xam ne nii ah jël yu doy doy waar la daan na fi ay ndaanaan ndax palmarès boo ci dugalee booy ñaa numéro 2 ah defe naa day rek rek loolu rek doy na wax ak yeneen i champion yoo xam ne mën nañ leen limba kon sos tamit ci làmb am na ci cër xëy na nag benn moment amoon na baisse de forme wala contre performance ci ay ci ay sorteem ba benn moment sax mu bàyyi làmb dikkaat dikkaat bi nag actuellement loolu mooy kumpa sénégalais ñu ba nga xam ndax Zoss bi mu dikkaatee nii dafa ñëw indi na entraînement indi na doole indi na lépp loolu dinañ xam comme li Alioune Seye de li Lac de Guiers wax bu amee maanaam bu Alioune Seye de marché ci kawam dox jëm ci kawam ndax Zoss dina ko mën a intercepter dékku ko bëreeg moom wala ak moom pour génn ci loolu loolu dimanche lañ koy xam yàlla lañ ko fekkee te tal ko ba tey bu ñu continuer ci bés boobu euh, combat phare ba ca beneen ba ca des tamit di combat ba nekk ca kaw a kaw mooy diggante Pakala ak Forza ku ñuy wax nag Babacar Dione euh, xam-xamam wàcc màcc ci wàllum làmb moo xëy di ci wax ci sunu làmb moom li mu gis mooy ki nga xam ne ni moom mooy Pakala moom mooy nañ jël ay responsabilité am nee na bokk na ci responsabilité am nag nee maanaam xeex nee na moom xeex moo ko arrangé ci combat bi Forza bëri bi moo ko arrangé ah la boroom xam-xam wax loolu nag ku ci nekk ak ni ngay analyser moom analyse boobu la gis parce que daa jàpp ne Forza Pakala bu bëggee daan Forza il fallait mu ubbee làmbam xeex Forza tamit su bëggee daan Pakala il fallait que mu invité bëgaar bi jéem a bëree ji loolu mooy gis-gisam ñoom ñaar nag bëri woon nañu defe naa képp ku delluwaat ca combat bañ bëri woon fa nga xam ne moo doon ca Thiès te Ligue Nicolas tëggoon ko di nga combat boobu dina la war a mën a jubbanti nga war a mën a xam combat bi ñoom ñaar ku ci ne li nga ci war a def parce que combat boobu defe naa ne Forza bokk na ci lëkku ku gën a ñàkk loo kera mooy xeex bu bëri su ma jumlee fekkente ne eh, <laughs> waaw ñoom daa amul defe naa noonu la demee woon waaw ba tey bu nu continuer eh, ci làmb ji ak ay combat yoo xam ne yu taxaw la mm, ku mel ni Fallou Ndiaye taxawal na ñaari komba yoo xam ne yu amateur yi bëggoon la te doon ko xaar bokk na ci bulldozer mi ngeen xam doomu Malika di xale boo xam ne tamit vraiment mu ngi ci benn dynamique de victoire bu doy doy waar mu boole kook caatu yarax boo xam ne tamit loolu kee di dund lay dund moom tam ci dynamique de victoire bu garaaw la nekk moom te sax moom dynamique de victoire dafa doy waar parce que moom ci ay seconde lay bëre la preuve gis nga combat yi mujj a bëre digganteem ak Zal Bawal baat ak tontu la Bulldozer tamit digganteem ak Gine bu Yoff gis nga tamit dafa mujj ak mbaat ak tontu mu mel ni kon fàllu wala ñaar ñoo xam ne dañuy dem kon il fallait que buñ dajee mu am ko xaar ba ci des mooy fallu tëgg ko tamit mooy kawa boo xam ne dama naan yëpp bëggoon nañ ko muy diggante Laurent Ndiago ngeen xam ko Laurent mi nga xam ne macha allah yëngal na jamono ak Bou Siteu mi nga xam tamit yëngal na jamono ñu ñu ñoom ñaar nag yàlla dogal ñu nekk ñoo xam ne doo leen siin ne mbër yaa nga ne la ndax seen guddaay wala seen mbër yaay mais nag ay mbërëntaan lañu te itam yàlla dogal na ni euh, bëgg nañ làmb ñu ngi koy dund di entraîné nekk ay mbër nekk na tamit ñoo xam ne ñu am xorom lañu Sénégalais di yàkkamti dégg seen ay kàddu muy Bou Siteu muy Laurent Ndiago Fallou Ndiaye tamit taxawal loolu muy am am solo ba tey leneen loo xam ne dafa taxaw te ki ko def tamit du suñu frère jamaïcain moom tamit def loolu mooy diggante Cheikh Super Jamono wax naa leen ko euh, bërki dem ñëw na fii ci ci Arena Hebdo ku ne gis na liñ fi liñ fi waxanteeg xale bi ñuy wax euh, Mor Kankang waaye yàlla dogal na ne digganteem ak Mor Kankang am taxawul waaye digganteem ak euh, euh, Siza moom moom mujjee taxaw jamay jamaykee moo fa jaar kon jam tamit vraiment ah bërki démb andi a góor a soog ak ki nga xam ne nii moom mooy Fils de Balla waat ci combat bi muy loo xam ne kon daal vraiment ñu ngi ko ñaanal tamit yoon wi mu aw rek mu gën a continuer gën a dem macha allah affaire yi moom. comme li ma wax rek liggéey la rek quoi liggéey la rek teg say mbir ci yoon boo ko defee rek mën nga jaama daal te defe naa moom ci yoon woowu la tegu ñu ciy nuyu ñu koy encadré ñoom ko jàppale si combat yu ndaw yi ak Mor ne tamit vraiment fu lu luy jam production rek mën naa ne li ci ëpp moo koy doxal ak ñu mel ni ki ñoom Lamine Seck li TV ñun tamit bokk nañ ci ñoo xam ne vraiment ñu ngi jàppale jamaykee parce que tamit jam comme ni ma koy waxee rek rak la frère la te mu ngi góorgóorlu te kuy góorgóorlu laa soxla waaw góor leneen loo ba tey dafa am muy làmb joo xam ne amoon na ca mbuur galaa la bu amul mbuur waaw ca stade municipal mbuur booy ngaay bu oncad moom moo fa daan doon général Diouf muy ko combat boo xam ne nañ général Diouf ah booy booy ngaay bu oncad da koo bett ah, parce que tamit boo loolu mën nañ ko waxee parce que booy ngaay bi xëy na xamaguñ ko bu baax a baax ci li affaire frappe bi mais général Diouf ñu bëri xam nañ ko ndax bëri na mbuur ay journée bëri na Dakar fii ay làmb kon defe naa ah mais nag làmb loolu lay demee des fois surprise am ci parce que loolu moo koy neexal kon di ko encourager moom général di féliciter booy ngaay boobu mobile de tamit démb génn na def sorteem wax ci convocation bi nga xam ne nii moom la ko CNG convoqué woon waaw wax na nag lu baree baree bari defe naa ne vidéo yi fu ngeen dem ci internet bi di ngeen ko fa gis bu ngeen duggee biir suñu làmb tamit di ngeen ko fa gis waaye li am solo daal mooy ah euh, ku ci nekk si ñaari parti muy parti wu mobile 2 wala parti wu CNG wala parti wu promoteur bi defe ne dama naan li ñuy noppal ñun ñëpp ku ci ne la la war boo ko defee est-ce que coow dina bari xaw ma nag ci kan mbir mi fan la sooxe waaye ku ci ne ci ñoom xam nga la nga war a def xam nga itam la la war bon bu ko defee nag ñun mbir moom foofu lañ ci yem waaye xam naa ne comme mbir la mu nga xam ne nag ah ay mbiru CNC convocation wax kii da caa am li am solo mooy li ma bil wax nag bu dee am na lu warul nekk kan ni CNC euh, nañu respecté mbëri CNC dama jàpp ne respecté mbëri moo leen fi war a parce que mbëri yee leen fi taxane loolu laa yaakaar bu ñu ko defulee moom dama naan defuñu li leen war te itam defe naa ne loolu donc moom moo leen fi bàyyi ñoom Bira Sène ak bi ñoom Maysa Ndiaye maa ngi leen di ziar bu baax a baax a baax ak gars yi fa nekk yépp ñoom njàmmee bu mu fa jógee record laay dem record nag wax naa leen ko jàkkaarloo tafaatin booy ñaa tey record ñëw na ci tuuti yaatoo yaatoo yaatu mu mel ni ki nag Pape Thialis Faye dafa am lu ko daloon ci face à bu njëkk ba ba ñu cosaan kera ku ne xam ne ni police nekku fa woon te tafaatin ni mu toll ci làmb ak euh, li muy drainer ci ful ah, ko ndakaaru ci côté bi mu nekk toppe maanaam Médina ak zone yooyu ay galtappe côté yooyu ni ñu koy supporter sans compter bawol ga nga xam ne fa la soqe ko ni ñu koy supporter boo ko woowee fenn ci benn lii ne face à nga koy defal jël Boy ñaar bi nga xam ne Pikine ku ne xam na ne tey ni mu fa mel ah ci wàllum mbooloo mu koy topp booy ñaar gis ngeen bi muy bëri Lac de Guiers 2 arène nationale keroog na mu ko def ak ay nit Boy Niang boobu boo ko woowee mbooloo mi koy topp mbooloo mi topp Tapha ah nga woo ci benn lii amul sécurité defe naan lu fa am dañ la koy jiiñ moo tax ba mu amee itam nit ñi ah calis coow li lu mu bëri bëri yow la parce que nag yaa jëlul sa ay responsabilité waa ngi dégg parce que jëloo woon sécurité effectivement loolu moo amoon ba mu jë mbir ma melul na mu war a mel coow am ca gaañante am ca loolu nag la ñuy mo la ñuy moytu tout le temps di ko wax ku ne ay boo dajal da ngay sécurité tey nag defe naa ne loolu lay bañ mu dal ko ba tax mobiliser na lu toll ci 300 policiers pour ñu sécuriser mbër yi sécuriser stade bi sécuriser ku fay ñëw defe naa loolu mooy tax tey face à face tey bi incha allah rabi ñu ngi ñaan yàlla réussite am ci di ko féliciter moom Thialis di ko encourage di wax ne ah xëy na defoon na foofu erreur rectifié wu noonu tey loolu mooy àddina nit mënoo dëkk di parfait des fois da ngay juum fii jubbantiku fële kon defe naa daal ñu ngi ko ñaanal yàlla combat bu mu jublu tamit yàlla na ko yàlla dimbali ba mu génn ceeg ndam face à face bi daal tey kon nañu bàyyi xel ne que al tey ci la ca stade Iba Mar Diop entreprenant la ticket ba 2000 la loolu mooy li am tey waaw di bëggee ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm aussi aussitôt tamit di encouragé koo xam ne euh, sport la rek mais sunu international la muy Krépin Diatta bi ngeen xam ne euh, blessure dab na ko ba ñu war ko sax opérer te opération boobu su amee au moins dina toog trois mois wala mooy wala deux mois yu tagal kon defe naa kon kooku mën nga ne kan bi tey du ci bokk muy kooku lu nga xam ne lu metti la pour équipe bu Sénégal lu metti la tamit pour peuple Sénégal ndax Crespin ba mu duggee équipe nationale ba tey wax dëgg yàlla ku ne gis na xam-xamam technicité am ni muy wanee boppam loolu bokk ko jëli ci ay club ko ba mu dem tey nekk AS Monaco di fa football mais nag bon lii mooy àddina da bëgg lii yàlla defal lii xëy na ñeneen nga xam ne ñoom ñoo ñooñu war a représenté ci kan boobu ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla bu ci am kenn am blessure fi ak kan ba ba ñu ca yeggee mën ko gañe ji ca Cameroun andil ñu ko fii ci Sénégal mais Crespin daal ñu ngi koy wax ne ko ah ñu ngi bokk ak moom tiis boobu di ko bokk ak waa équipe nationale yëpp di ci profité di nuyu xam nekk ñoom Gana ak ah, euh, waxi mbër rek du yéen gis ngeen Papa du maa nii taxaw gis ngeen mi kon kay nañ bàyyi ba bis ba rek amul benn mbër buy tax ngemb